ay jëf jërë ngeen jëfati mbokki internet yi ñuy bàyyi xel si seen plateforme web info tv fekkee ne abonné goo leen leen gaaw daal di abonné daal di bës ne mooy cloche notification bi su ko defee ngeen daal am suñu ay information à temps réel ak aba le ay jëf mi ngi noonu nag nestut ñu daal di dikk si li nga xamante ne moom mooy showbiz bi gannaaw kii di euh, soxna Batoor ak kii di euh, Tarba Mbaye le Baye Fall de la musique euh, sénégalaise borom li naaw neexa sànni borom jëriñoo ne Malaw Besamba nekk te daf ñoo amaloon li nga xamante xamante mooy surprise bu rëy bu rëy naka noonu nag la diggi daal di génne tey jii nag euh, si ay clip boo xamante ne daf si euh, sargal euh, suñu jigéen ñi waaye tamit clip bi nga xamante ne woy na si woy bu rëy daal di baaxee bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk si bu mu sëy di ñaareel yi daan ni daal di si woy woy bi nga xamante ni ah, ku ko dégg dina xam ne Tarba Mbaye liggéey na waaye ku ko dégg dina dégg ay way si li nga xamante ne moom mooy clip bu bees bi nga xamante ni borom jëri ngoone Malo Be Samba woy na ko daal si wax wax yi nga xamante ne kàddu yi am solo ne ñaaral leen dong la muy bokk wërsëg mi ngi noonu nag bu fekkee ne abonné goo leen ne wéy leen gaaw daal di abonné daal di bës li nga xamante mooy cross notification bi su ko defee ngeen daal di am suñu information à temps réel ak Abba le vrai jërë ngeen